làmb ñàkk nañ koo xam ne si jàmbaar la woon lool ci mbir mi. dëgg la man dama jóge stade léegi rek taal sama téléphone gis affaire yi ma sax wax ñi ma nekkal mais wër na Serigne Saliou ku baax ku yëg doomu aadama moo fi bàyyi ko Papa maa ngi ko xam 2004 le 28 mai 2004. laa ko xam stade Assane Diouf ma organiser lamb mu ñëw ci moo ma gën a may fit ci lii ma nekk te ci ñoom laa ko gisoon wallahi al azim bi mu ci ñëwee dama ne mais père Gaston ma yëkkati ko mu ñëw ci stade bi ci laa am numéro ba fii may wax ak yow bu ma ko wooyee dina jël wala bu paree rappelé nit oyof wallahi al azim liggéeyal Sénégal koo xam ne dafa bay réewam Sénégal koo xam ne adduna ñu bëree baree baree baree baree bëri dañ doon dund ci Gaston Mbengue wallahi la ñoo ngi koy ñaanal ci barki Serigne Saliou yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana amiin wallahi asim bi nga ma wooyee rek damaa gis numéro bi damaa tiit hmm. ma xam ne lii liñ may wooyee euh, problème mu père Gaston la hmm. mais maa ngi ñaan yàlla ci barki Serigne Saliou yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana jàmbaar ku gëm boppam ku nangoo liggéey. Hmm. yal na ko yàlla yërëm xare bu àjjana instant yii sama xol dafa seet. sax lan laay wax wallaay la. jërëjëf.